Nous avons lancé pour lancer le projet des masques pour sauver des vies les femmes se mobilisent contre le Covid-19 Nous, avons en tant que ministre de la femme nous avons fait ci marché Grand Dakar lancer un programme assez important pour wax Nous avons bëggoon jigéen ñi nga xam ne dimbal la am tuuti dara ñu jàppale ne dogal na dans des zones ñu nekk ñu nekk dans des situations de pauvreté ou bien dans des dans les couches vulnérables

la femme est interpellée en première ligne loolu moo tax tey jii ñu cette campagne bi mais aussi avant cela, nous avons defoon nañu lu bari parce qu'il indi avait ay kit sanitaire jox ko jigéen ñi tey nag dañu nekk à plusieurs niveaux d'impact. Le premier niveau mooy le personnel de santé nga xam que li ci gën bari main d'œuvre bi ay jigéen la ñu doon les hôpitaux les infirmières les sage femme Nous avons war ay dispositif spécial pour nous. ensuite ñi nga que ne ñoo ne ci biir kër yi fi ak seen jëkkër ci ménage

nous, nañu salon de coiffure restaurant donc problème la son excellence président Macky Sall en tant que ministre de la femme nous ay pour ci impact vraiment freiner l'évolution de notre pays